الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مبقي تي يالا ادونا بييب بو نكو بوله لو توتي لا ديره بو غات لا ادونا سا دوند بير ادنا بي تاميت غنا غات واي كان ياغو في تكن دو في ياغو ñu ñëpp fi jóge dañoo ñëw ci kaw suuf ngir liggéey waaye dañu war a dellu ci yàlla ngir jot suñu fay incha allah ku jëf lu baax yàlla fay la lu baax yokkal la ak yërmandeem ku def lu bon yàlla ku maandu la du tooñ kenn wa ma rabbuka bi zallaamin abid tuubal nga dellu ci yàlla bàyyil yi xaraam yi moytul bokkaale wax joo xamante ni waxu bokkaale la jëfu bokkaale moytul bidaa toppal alquran ak sunna ndax boo deewee incha allah nga mën a texe ndax boo demee sa bàmmeel mën a texe ndax boo dajeeg borom santa laa mën a texe kontaan moytul fréquentation bu bon moytul lu xumb lu bari lool waaye teguwul ci yoon tegul ci alxuraan ak sunna coow la rek ak ay mayante fit lekk di naan waaye lépp looy wax lépp looy def Lajal d'abord lan la ci yalla wax ak lan la ci yonent sallallahu alayhi Wasallam. wax budé fi nga japp lol la yalla andal ak yunus sallam japp ci nang ci ngoy donté ni aduna bi yeb bàyyi nañ la waaye lo nek su ci yunus sallam andu ci bàyyi ko ni ñepp and ak yow ndax ñi and ak yow ñepp muy sa alal muy say nit muy say daraja muy say tabax muy say kër muy muy lo ci ta doon amul lenn lu la ci fek sa bir bammel yow rek yaa des sa bàmmeel kon tuubal nga dellu ci yàlla bàyyi lekk lu xaraam donte ni neex na la lool sa bànneex bëgg na ko bàyyil naan lu xaraam bàyyil wax lu xaraam bàyyil jëw bàyyil dugg ci loo xamante ni sa yoon newu ci bàyyil tas ay diggante sooy wax waxal muy mu nekk lu njariñ wala nga noppi yoon san ne man kaana yuminu billah wal yawmil axir fal yaqul xayran aw liyasmut ku gëm yàlla gëm bés penc na wax wax ju yiw wala mu noppi tuubal nga dellu ci yàlla bu ragal ñàq ba mu tax nga dem ci lu yàlla araamal ba mu tax ngay liggéey liggéey bu yàlla ara boo xamante ne fa xaraam yàlla moom moo la bind moom moo lay wërsëgal lépp loo xam ne lu xaraam la moytu ko muurul te yàlla rekk tax bul xool li nit ñi di wax waaye xoolal sa place ci yàlla xoolal sa place ca yàlla bu ñëpp ne yow a fekk yàlla nee na du yow du yow waaye bu la ñëpp bàyyee yàlla na yow la yow yaay waa ji xamal ni bés dina ñëw di nga dellu ci yàlla yow man turjauna fihi ila allah ragal leen bés bi ngeen di dellu ci yàlla thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ñu fay bakkan bu ne lu mu jëfoon te yàlla du tooñ kenn ku ci nekk ci ñun yow mi di ma déglu xamoon nga ay nit amaana yéen a doon lekkandoo doon naanandoo amaana yéen a dëkkoon sax amaana mën mosoon ngeen gisee di waxtaan xëy na sax say xarit lañ xëy na sa mbokk lañ xëy na sax say wayjur lañ xëy na xëy na am na ñoo xamoon en tout cas tey newatuñ fi newatuñ ci kaw suuf mais ñoom ñu ngi ci suuf suuf si seen lal tey suuf la seen njëgënaay suuf la seen lépp suuf la waa ñooñu tey nan la ñuy dundee foofu lan moo leen fay njariñ lan moo leen fa fekk waa ana kër ñu tabaxoon ana mbolo bu nekkon bu andon ak ñom ana alal ju bari ja ak konti ya ana tukki ana yoy yep laqad jitumuna furada tay ñëpp ay dellu ci yalla te benn benn lañu delu ci yalla kenn dula fa fek ci mbugal nga na a dekk ci merum yalla ndax benn laps de temps bu gatt nga sol colin bo xamanteni yalla bëgguko nit ñi kontaan ci yow wala boog nga ragal ñàq di daw ginnaaw àdduna tuubal nga dellu ci yàlla wóolul sa borom subhanahu wa taala dundal nga wóolu yàlla boo deewee incha allah dem aljanna moo gën kat dund boo xamante ni bu gàtt bi nga nar a dee nekk ci safara soo xamante ni yàlla nañ ci yàlla musal yàlla na yàlla jéggal ñu yàlla na yàlla suturaal ñu yàlla na yàlla sàmm ñu jéggal ñun ak suñu wayjur alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na yàlla yërëm jullit ñëpp yàlla yàlla yërëm ñu suñuy njuum teg suñu bàkkaar ku ci feebar yàlla na yàlla may la tan ku ci am problème ci ay ku ci nekk ci ay problème ak ay jafe-jafe yàlla na ci yàlla jàppale génnee la ci nu mu gën a rafetee yàlla suturaal ñu fi dunya fil qabr wa fil axira wassalaamu aleykum wa rahmatullah